whatsapp twitter facebook messenger di ay jumtuwaay yu mingook jamono yu faral di jëfandikoo lu bari ku ci nekk nag ak lala la tax a jóg askan wi seen xalaat wute ci loolu. am na ñu si defaroo am ñu si yàqoo man maa ngi whatsapp maa ngi ñaari wax whatsapp sax sama téléphone mais wax dëgg man dama si liggéey waaw daal dindi gi daal mën ko béyee mën naa béyee ñàkk ay fait di whatsapp ak yooyu noonu mën naa béyee ñàkk wax dëgg yàlla. ba ñu neex mën naa dugg mën nañoo dugg xool whatsapp yi lu waay dugal ñu say dugg xool ko mais man moom ma problème boobu man moom dama si liggéey waaw ma see dugal loo xam nag da ko suroon noonu wala naa am naa. li muy defar bari na mais aussi euh, des fois dafay yàq lu lu lu bëree bëree bëri cest dire dire euh, lépp mën na fonctionner ci biir euh, ñu koy jëflante ci secret mais vraiment partage daal dafa doon lu mënul ñàkk rek mais balaa ñi ngay partager dara itam loo war a seetaat la waaw du lépp la ñuy partager daal. bokkuñu yam quoi mu ngi mel ni élève beeg professeur bi xam nga mu ñoom ñaar bokkuñu ñi dañoo. dañoo wute lu bëri quoi ñi dañuy yàq ñi dañuy defar amaana ñuy yàq xam nañ leen ñoom dañ leen interdit ñi defar nag ñu couverture leen ñoom ñu defar. ci fàttali li gënoon a tax a jug réseaux sociaux yi bokk na ci yombalal jokkalante bi ci diggante ñi nekk bitim réew ak seen i waajur wala sax seen i soxna ak seen i waaye mbir mi fu mu toll nii li ci rax dafa bëri loolu. pour ah day yàq defarul dara ci réew day yàq quoi day yàq ah, parce que man dama man sama téléphone yi sama poche ma yor xam nga am na yu bëri yoo xam ne moom dama ko doon dund mais nekkul yàlla gërëm nekkul ndibi gërëm nekkul diine gërëm baaxul moom loolu moom su ma day sax moom dindi ko sama gën lu man da sax laa comme yenn xale jigéen nu ñuy jëlee seen sexe wala seen truc du genre leneen lu nekk loo xamante bokku ci parce que du à cause de cela moo tax ñu ubbi ko et tout c'était pour Euh, la communication euh, genre comme que nga am benn parent proche bu nekk euh, à l'extérieur et tout. jile moom gis ne ngir saafara jàngoro ji balaa muy jur musiba ci réew mi mooy ñu daal di koy dakkal aye ko fépp ba kenn du ci mun a jot. ah mu leer li ëllëg day indi lor dañ ko teel a tëj freiné na ko am na nga xamante daal baaxul ci réew quoi te boo xoolee léegi jeunesse bi léegi léegi léegi léegi ñëpp ñëpp ñëpp. affaire affaire yi maanaam ñàkk fayda affaire yi sax-sax affaire yi yoo xam ne yëpp yëpp ñu ñuy dund ci yooyu la ko jëlee ci whatsapp yi ci feej yi te man jaaduwul quoi. waaye fu mu toll nii jamono di dox ñeneen ñi di jëfandikoo whatsapp facebook messenger di uñ ñi sutura jàmbur ndax looloo tax sax nguurub Sénégal ne dafay jël ay disposition ngir saytu mbir yi ba mu baax waaye xalaat yi daa wute loolu. ndax ñenn ñi dañoo gis ne dañoo bëgg a sàcc képp élection yi ñu jëm. mais whatsapp moom sa waay élection bu dee élection ñëpp de whatsapp nit ñi dañ ciy man whatsapp dama ciy liggéey bu ta ñee ñoo xam dañuy nekk di xas ay président wala saaga naam naam am ñoo dañuy liggéey si whatsapp. fii moom àdduna wërngal këpp du ñu ay mag waaye eh, seetaan nañu ba tey ay élection eh, voté nañu même bu dee ñaari at ñetti at. Eh, fi mu ne nii moom kenn ku nekk xam na ni sàcc élection moom mënatu am ci àdduna wërngal këpp fi mu ne nii moom waaw loolu moom leer na nañ parce que eh, élection yoo xam ne bu ñu koy bu ñu bisu bisu élection yi kenn ku nekk bureau de vote bu nekk di nga fa am eh, ku la fa teewal. élection moom kenn mënatu koo sàcc daal ci gàttal. état bi moom yooyu noonu muy def yooyu yëpp moom ay kelem la moom loolu moom xam nga ne état bi moom ñoom ñoom ñoo wax daal à ci munti doon réseaux sociaux yi moom mi ngi di changer doxalin wala askan wi moo koy jëfandikoo ci nu jaaduwul jot na ñu delluwaat ci li fi maam yi bàyyi woon suturante suñu biir waaye it jëfandikoo li nga xamante ne mooy réseaux sociaux yi ci anam ba mu gënee ngir mu amal ñu njëriñ.